comment vivent les Sénégalais les Sénégalais c'est des agriculteurs des éleveurs des pêcheurs des artisans ñoo gën a bëri ci ba léegi les efforts qui sont faits toutes les orientations sur des masses financières énormes sur des projets infrastructurels bu ñu ko réorienter vers l'humain vers le Sénégalais dina dox les gens ont besoin de travailler de santé d'éducation et de sécurité rien d'autre li ci des ñoom mën nañ ko defal seen bopp mam gooyo ay jaaraama kon wóolu nañ la xale yi yow lañ jox